Ah, ah. ahlan bikum mbay njaay bi wax ne Macky mën naa am ñetteelu mandat Macky fa ko war a kajj dàq gi ne ko APR du samay kàddu Mame Mbaye Niang moo ko wax tribune yéen kaay yeggee ñu ko ñu ne déetewaay mu yokk ca ne Aminata mi Mimi Touré Macky fa ko war a kajj dàq ko wàcce ko ba ci bun Abdallah Dionne moom it na ko Macky football dàq ci biti ba tax yéen kaay bi na ko Mame Mbaye Niang yaa ngi fetal gaañu de attaqué dugg leen mu ne leen waaw mënta ñàkk ndax képp koo xam ne taxaw nga jamono bi di wax ci mbiru ñetteelu mandat Macky la war a dàq APR Mbaye Ndiaye mel ni ku koy tontu na ko man de maa ko waxoon te ba tey la ma waxoon laa waxaat tey dëggal naa ko Macky mën naa am ñetteelu mandat kàddoom yaa ngi ci l'observateur yéene kaay bi yokk ci ne jëwriñ ji ñuy wax Amadou Ba waa APR ya ca Parcelles Assainies kaj ji nañ ko dàq ko puus ko mu génn ca biti si du quotidien dëggal xibaar bi ne APR ca Parcelles Assainies carte ga jaxasoo na fa de le quotidien yéene kaay yi nañ ku leen jiite mooy seen jafe-jafe a ci waa APR yi ñu jóg ngir xeex ñu dàq génnee ne Amadou Ba ma nekkoon coordonnateur ba léegi nekkatut ko Mbaye Ndiaye ne nañ waxante sax dëgg coordonnateur amut foofu njiital structure ba moo fa am te loolu man la la ñuy tuumal Amadou Ba nag mooy ne fa bëgg a tas APR yàqal APR Mbaye Ndiaye na moom munu ñoo tere ñu amal suñu assemblée générale def nañ ko kajj nañ ko c'est fini intaha comme nag tontu du forox te borom dëj bi tamit mën naa jooy dëjëm Amadou Ba wax na tontu na Mbaye Ndiaye nee na ko yow munoo maa dàqalu di ñaan ak yow sax bëri dégg naa yoo yaay ab réunion moom nga organiser ab terrasse matu leen sax juróom fukki nit ngeen naan ngeen may ma dàq seen waxu caan caan yi du ngeen ko bàyyi te lii ngeen def nii man ma koo ñàkkal fayda xamul bopp xamul génn kàddoom yaa ngi ci direct news kàddu yi Guy Marius Sagna nag mi ngi ci go à grand place a yaaw seetal nee na bëggul kenn négocier waxtaan ba juboo pour ñu bàyyi ku mu génn kaso déedéet les éco yéen kaay ne ab leetar la bind moom Guy Marius ca kaso gam ne ci la xam le ne ay déggoo protocole ak ngir ma génn kaso d'accorduma ci na yoon rek def liggéeyam njiital àttekat yi ci Sénégal Souleymane Teliko ko wax nga dëgg de te yoon bu cour des comptes rapport yi ñuy def fañ ko war a càmbar mbiru wiyol yi nee na xelam fajaa seen tolluwaay jafe-jafe yi ñoom àttekat yi lépp wax na ko ca laas yéen a kaay enquête yéen a kaay mel ni ko daan ko yéen kay seen problème dëgg-dëgg yéen àttekat yi magistrat yi mooy xëccoo xeex ñàkkante ci ay poste doyen des juges ak parquet bu ndakaaru ku nekk ci yéen fa ko bëgg a jiite laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy na kër ga ñu wax saar bii nga ci wàllu pétrole ak ñoom seen ña nga ca ay jafe-jafe de kàmb bu toll ci ñeen fukki milliards moo yëngal kër ga l'observateur moo ñu ko xamal li mu ñu xamal moom la solo yéene kaay mooy jàngoro ji ñu wax épilepsie maanaam nit kuy daanu mbet mbetaan yarawe di ànd lox gémmiñ gi di génne puurit di daanu hay jëll daal léegi jàngoro jooju bëri na Sénégal te ñi koy dund tamit ñu ci ay jafe-jafe a yaaw képp kuy daanu nit ñi fañ lay daw beddi la joxe jàngoro ji nag ak nañ ko war a toppatooyee lépp docteur wax nañ ko ci yéen kaay bi la mu ñu wax moom source a yéen kaay mooy ne faham ab gambien bu ñëw ci aéroport Blaise Diagne ak feebar ñu njortu ne fahamee coronavirus. Ah, yow seet tal kilifay Sénégal yi jël seeni matuwaay bi mu yegsee ci lañ ko defal ay test xool ndax am na jàngoro ji teg ko foo xam ne kenn du ko jege ñu mujj gi yóbbu ko hôpitalu Fann dalal ko fa résultat yu njëkk nag ci jàngoro ja ci lan moo ko dal ña ngi koy xaarandi ca yéene kaay ba nay leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy tubaab bi ñuy wax Olivier Sylvain ñu ne moo doon yekkataan tëddee xale yu góor yi kat ya nekkoon ca Dakar Sacré Cœur libération moo ñu xamal xam na yeneen ñetti xale yu génn bees wax ne tubaab bi fa leen doon tëddee tàggat yaram Balla Gaye 2 ma ngay nettali fukk fukki at ak juróom yi mu def ci làmb ji xam na ci bànneex ngoon yu neex waaye waaye xam na ci ay ngoon yu naqari am na ci tëb ak mbetteel li betti ñu bëri nag ni ki bër ki démb mooy ne Liverpool mbuqi nañu ko Watford moo fa jaar stade yéen a kaay ne waxal rek Ismaïla Sarr moo dóor Liverpool mu nga xam ne kenn mësu koo dóor bi championnat bi commencé léegi lakk na caax ya toj ko ñaari yoon ba pare passé benn ñu dugal ko fi mu toll nii nag Angleterre Ismaïla Sarr moo fay coow ci record yéen a kaay Ismaïla Sarr nee na man sama liggéey rek laa def keneen ku def liggéeyam nag mooy équipe bu mag a mag bi Real Madrid classico démb bi dimanche ay waay ndaw samba Real daal moo jàpp Barça di ko mbuqi di ko mbuqi di ko mbuqi di ko mbuqi di ko mbuqi di ko mbuqi ba muy bëgg a dee ñaari bal ci dara Lionel Messi mi ñuy coow fa jaaxle tuuti ko doon mu jooy ay xale yu ndaw Vinicius moo bokk bal ba Barça am yaakaar na fay égaliser entraîneur bu mag ba Zidane def li ñuy wax dugg dugal Mariano Diaz moo jaas bal ba kër ga toj Barça jommi léegi Real moo ko jiitu noo démb damaa yërëm waa Barça fekk la sa dëkk nii la yow nga ñëw sama dëkk ma mbuqe la xët la ngàdd la ba nga tëdd loolu mooy ne du ma sa morom supporter yi Barça yi de mu baareer ngeen kay